dama bokk ci réew mi carte d'identité nationalité sénégalaise laa yor. d'accord permis Sénégal laa yor. Mhm. Hmm? Mhm. comme ni ma leen ko waxee rek permis ak carte d'identité nationalité sénégalaise laa yor. mi ngi voilà mhm. man Selbé Ndom pourquoi pourquoi. président man ma ne ko woon ne tu seras le quatrième président de la république en 2009 ma xàmmee ma téye samay loxo ma fekkaat ko Saint-Lazare. siège ba ca Saint Lazare mooy lii mu toog ñaari at ak ñeenti weer doog a doon président te boobu ba tey mënumaa recevoir hmm. damay sénégalaise wax loo xam ne teg na ci bëtam moom njiitum réew ak ñoom Assane Sylla ak ñoom Samba Ndiaye ñoom Cheikh Mbacke ak protocole am Pape Samba ñu gis ma hmm. Chérif fekk ma foofu Saint Lazare ma ànd ak Samba Ndiaye ak Assane Sylla ñu ne ko kii nee na dafa gént nga doon bi njiitum réew mu jëngal boppa lu tax bopp ba tey Macky Sall yow mënuloo maa recevoir te recevoir nga ñëpp te wallahi alazim darajey seydinaa Mouhamed ñu ngi recevoir day darajey laa ilaha illallah du ma nangu kenn gën ma ci juddu kenn gën ma gënu ci xeet ndax damay wax ashhadu an laa ilaha illallah an anna muhammad rasul wallaahi te mën naa am li nekk sama yaram mi sax nekkul seeni yaram ndax sama yaram am na bind alxuraan te xaw ma ku may weddi président Macky Sall waaye yow warta doon yow. d'accord mu nekk lu am solo kenn ku nekk am nga maanaam droit wax li nga bëgg. ak euh, selon ñi nga ko yëgee ak tamit yéene bi nga xamante ni am nga ko. Mhm. waaye bu fekkee ne euh, comme li nga wax rek mhm. euh, ba ba ñu la wanee est-ce que du woon message boo war a passé lu tax Selbé bëgg rek Macky lu recevoir ko lum mu ciy séntu la wala dafa jàpp ne lu normal la. lu normal daf maa war a recevoir ndax xam nga lu tax bindoon naa fi audience. Mhm. boobu ñoom la Sonko yëngal réew mi. ma bind audience pour bëgg a moom. pour wax maanaam yenn yi bu mu ciy réagir ndax ginnaaw mooy njiitum réew mooy ndey gi seex dafa war a jaaxaan am na loo xam ne moom waru ko ndax xale yi ci dee ci Sénégal bari nañu te loolu warutoon a am te Sonko it ñu ngi koy euh, blâmer ci lenn ndax warutoon a woote bu wootee fitna daal di yeewu ba tax ay doomi jàmbur génn ci àddina ay doomam génn ñu àddina doomi Macky Sall li génn ñu àddina ay doomi jàmbur yoo xam ne dañoo yaakaaroon seeni waay seeni seeni ndey dañu leen a yaakaaroon ne dinañ màgg ba tekki ba jëndal leen kër di leen jox dépasse wàcce leen yóbbu leen ñu ziyaare Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooña la seen doom dem mm-hmm. mais amul benn autorité bu ngeen dégg ne manifestation seen doom dem na mm-hmm. ndax seen doom a ngi bitim réew mm-hmm. loolu laa bëggoon toog waxtaanee président ak leneen loo xam ne dama ko ko war a defal man Selbé Ndom léegi ñu ci bëri euh, Sénégal xam nga euh, dañoo nekk ci réew moo xamante ku nekk ak sa avis mhm. ñu ci bëri tey euh, la fekk ñuy dégg à chaque fois bu Selbé defee interview di wax ne yi daf ma war a recevoir dañuy jàpp ne rek jox-jox bi nga xamante ni moom nga fa yaakaar moom mooy tax. non force la daf maa war jox damaa bokk ci réew mi. Hmm. quoi. yow loolu ba weddi ko. du ko weddi. Mm. du ko weddi parce que day terelaate. Mm. jabaram dàq terelaate gën a baax ci àdduna bi. Mm-hmm. macha allah doon jigéen jigéen doo xam ne. Mm-hmm. damay waxtaan ak moom mm. su ma mayee ma jël bu ma mayul ma sant. Mm-hmm. ndax commencé na jël ci jël réew mi def sept ans dem deuxième mandat du ma taxaw mukk ne bëgguma sa Macky Macky Sall may ma bëgg naa passeport diplomatique di dem fu ne sama ñaari doom yi ma am macha allah damaa man damaa jaboot samay rakk dañ maa jural samay mag yu góor jural ma yaa ngi dégg man ci sama bopp yàlla may ma ñaari bant. Mhm. te sama famille amuñu doole. man maay seen kii laa soutien de famille doon taalibe sëñ Touba. kon man du ma bañ Macky Sall jox ma ay milliards. su ma mhm. ko joxee dama koy gérer. yaa ngi dégg mhm. ndax samay doom a ngi nii sama doom bu góor ngi nii bëgg naa mu dem tukki. te maa ngi ne aw ma du ma mës a taxaw Sénégal set bi nga xam ne àdduna dañ koy seetaan mhm. ne bëgg bëgguma Macky Sall may ma dara mais du force su ma mayee ma jël su ma ma ànd yàlla yonente bi suñ tubaab mi ma àndaloon effectivement bon ma koy wër boobu maa ngi dund te Macky Sall dundalu ma nga wax solo léegi nag euh, beneen xalaatu askan wi ba tey bokk ci euh, tey ji euh, bëgg na Macky Sall recevoir ko supposons Macky Sall recevoir la et teral la comme li nga wax yéene bi nga am ci say njaboot ak ci say mbokk li nga xam ne jural nañ la ko ndax nee nga dangaa njaboot que ni nga daan taxawoo askan wi mu mujj changé ndax jox-jox bi est gisoo ne sax nii mu demee mu gën wala yow jàpp nga ne jox bi mënul ñàkk te terewul di nga continuer di taxawu askan wi. xam nga man damaa topp Macky Sall boobu dara amul di ko jaayal ay carte APR. boobu doonagul président Assane Sylla mi ngi dund Samba Ndiaye mi mu def député mi ngi dund ci yëmbal buun keroog ba ñoom Samba Ndiaye yore seeni seeni photo yu Macky Sall taxaw def ay écharpe Macky Sall taxaw ci laa taxaw ci sama balcon fekk gis naa ne Macky Sall di doon président ma ne eh ñii taxaw ci balcon ma ne fii kan njiit bi ñu ne ma Samba Ndiaye ma ne ko yéeg leen mu ànd ak Assane Sylla yéeg ma génne kaamil wàcc billaahi wallaahi watallaahi ñoom ñoom ñëpp ñu ngi doon ma leen téye leen kii day doon président mooy topp ci Abdoulaye Wade ñu ne ma ah ma leen man Selbé maa la ko maa leen ko wax. Mm. téye leen ko. Mm. ba ci la ma Assane si la jëlee yóbbu ma ca siège ba ca la lazare ku lay wër nag di sol ay caraxam di lay jaayal ay carte yow bu fekkente ne yow fàtte woo te Macky Sall mënu maa fàtte mukk ci àddina. ndax li boo faloo boo faloo moom ci boppam. war na laa mën a woo ne la ah yow kat am na loo ma waxoon kaay jërëjëf sax day sedd xol su ma la gaañee def la nii sax sa xol dina sedd waaye boobu ba tey dama koo déggut gisuma ko mhm. Macky Sall ngi may dégg mhm. waa gouvernement am ñu ngi may dégg dama ko wax en haute voix bi ma fa taxawee ne leen corona ñu laaj ma boobu coronavirus ñëwagul senegal mu am kenn journaliste Mame Ngor Diasaka daal di may woo ne ma yaay dafa am lu xew dama laa soxla ma ne ko ah lu xew mu ne ma ndax ma ñëw ma ne ko ñëwal xaw moon sax lu xew mu ne ma coronavirus dafa am ci dëkk chinois yi léegi dama lay laaj ndax dina ñëw Sénégal ma ne ko chinois yi de lu raw coronavirus dinañ ko am ndax ñoom dañuy lekk jaan dañuy lekk jiit maanaam dañuy lekk mbott chinois yi ñoom xeebuñu dara muus dañ koy lekk xaj dañ koy lekk kon ñoom ak jaan ni mu amee Dakar mun nañoo feebar tooke bi mën na leen la jàpp ci laa ne Sénégal la du am coronavirus coronavirus moom duñ ko am ñoom bañ am ay seytaane ñoo xam ne dañ koo dagg dañoo dagg su ma wax ne coronavirus amul du am Sénégal ñu dagg loola jox ko ministre de la santé léegi man bi ma gisee ministre de la santé di di defar euh, kii euh, di def conférence de presse barki Seydina Mohamed xam naa ne man maa tax muy wax lam wax dégg naa ko. tegus ñett fan ñu jox ma convocation brigade de recherche kon ma gouvernement am ñu ngi may déglu. d'accord te Macky Sall xamoon na ne nee naa ko tu seras le quatrième président. d'accord nga ñi muy recevoir ñëpp laa wax. Mhm. man la waroon a njëkk a recevoir. Mhm. gis nga doomu aadama xam naa ne Macky Sall bonut ndax ba ma koy ba may xëccoo di dem di daw ci moom barke Seydina Mohamed garde corps yi di ma jàpp daf leneen bàyyi leen ko. waaye moom waroon naa xalaat ne war na maa gis bu yàgg muñ naa ba ba mu jeexal premier mandat du ma jeexal du ma muñ ba mu jeexal deuxième mandat. muy lu am solo daf maa a recevoir. solo ku nekk am nga sa cri de boo xam tu es libre de le dire. kenn ku nekk foo ko war a jooytoo nga jooytoo ko fa waaye nag rawatina Sénégal 7 mi nga xamante.